auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen siyaare di leen balu àq di leen ndokkeel ci weeru màgg wi muy weeru koor ñu ngi nuyu bu baax a baax mbooloo mi teew fii ci jotaay bi ñu ko tàmbalee ci sëñ Abdou Lahad Bousso secrétaire général daayira Muqaddamatul Xidma fii ci jumaa ji kon mu mel ni waa daayira Ilhaamul Ilhaamul Latiful Xabiir bu Tuubaa ci kàddu Jibril Fall ñoo teew ci jumaa ji di yëkkati kàddu ci turu jëwrin Serigne Abdou Pouy ak sëriñ Assane Yadd mi nga xam ne mooy saytu liggéey bi yëpp niñ ko baaxoo di defee ci weeru koor wu nekk tey ñu ñëwoon indi barkeelu bi nga xam ne moom lañuy ñuy ànd ak waa daayira bi waa Muqaddimatul Xidma ci liggéey bi mu jëm ci wàllu ndogu yi ren ji nag jamono ji laaj ñu soppi ko lool ci defin wi ndax ku ne xam na ne at yi weesu yëpp dañ doon faggu ay jumtukaay lépp loo xam ne moom la ñuy jëfandikoo lu jëm ci wàllu koor ci dogkat buy dog ci waxtu dog mu koy soxloo lu mel ni mburook ak ya ci aju yëpp ñu andi ko waaye ren ji nii ni nga xam ne jamono ji noonu la bindoo ñu soppi defin wi kon ñu dajaloon at yooyu yëpp nga xam ne moom lañ doon def ñu andi ko jëbbale si ko fas yéene ànd ak ñoom ci liggéey bi te bu ñu sañoon yéene ji mooy saa su nekk lépp loo xam ne maanaam dañ ci day am fii ci jumaa ji rek buñ ko mënul lépp itam ñu def ca ba ñëpp xam ne def nañ ko ndax wax dëgg yàlla maanaam yaatal gi ak jàpp gi ak taxaw yi ci barab bi ak liggéey bi niñ ko àndee rafet la nañ ko bu baax a baax a baax te dal na suñu xel bu baax a baax a baax kon addiya jooju mi ngi toll woon ci quatre cent mille muy loo xam ne wax dëgg yàlla xeeb nañ ko lool te xëy na jamono ji ni mu demee rek waaye nag ñu gën a góorgóorlu bu baax a baax a baax kon bu ko defee li ñuy tëje suñu kàddu rek mooy sant daayira Ilham Latiful Xabir ñoom ñëpp ci wax dëgg yàlla xëy na jàmbaar ji ñu def ci liggéey bi di sant bu baax a baax te di soññewaat ñu gën a góorgóorluwaat bu baax a baax gën a waat fu ñu mën di nekk rek incha allah rabi ñu gën a góorgóorlu ci liggéey bi nga xam ne moom la ñuy amal fii di ko ànd ak jëmm yu baax yi nga xam ne seen yitte lépp mooy liggéeyal Serigne Touba saa su nekk kon loolu war naa tax ba ñun lépp lu ñuy def rek ñu gën caa góorgóorlu bu baax a baax kon ñu ngi leen di tubal bu baax di leen jéglu di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa sëriñ Jibril ñu ngi lay delloo nuyoo eh, ci turu sëriñ Afiya Bousso mi nga xam ne mooy njiitul daayira bi ak kilifa yi nga xam ne ñoo topp ci moom te nekk fii ñu ngi ko tudde léegi di sëriñ Abdul Ahad Bousso mu talib mi nga xam ne mooy secretaire général lu bi ak euh, sëriñ Abdul Ahad Bousso maam Asta mi jiite commission sociale et relations extérieures ak sëriñ Fàllu Mbàkke mi nga xam ne moo jiite commission d'organisation Alaaji Fàllilu Njaay mi bokk ci commission relation extérieures ak euh, jëwriñ yi nga xam ne ñoo teew ci jataay bi yëpp ñu ngi lay nuyu ci seen tour te di leen dalal fii ci jumaa ji Euh, di leen nuyu ci turu borom liggéey bi muy seex Cheikh Mouhamadul Mountakha di ñaan suñu borom mu yàggal ko fi te wéral ko di jël nuyoo boobu yëpp nag <coughs> di ko teg ci sa loxo ngir nga jàllale ko ci jëwrin yi nga lim léegi moo xam Serigne Assane ak Serigne Amdi Puy ak mboolem membre yi nga xam ne ñoo bokk ci daaira Ilhaamul Latiful Xabiir ñi nekk ci biir réew mi ak ñi nekk ci bitim réew ak fu ñu mën a nekk ci àddina bi ñi ngi jël. nuyoo mbégte bu fees dell di ko di leen ko yóbbante ak ay ñaan yoo xam ne mi ngi bàyyikoo ci barab bu tedd bii tamit ngir fu waay mën a nekk rek sunu boroom dab la ak suturaam te musal ñu ci ndog mi nga xam ne moo am. gannaaw loolu it di leen sant ci taxawaay bi jiitu démb tey doog a ñëw eh, ci wàllu Pastef ci fànn yëpp moo xam ci ànd daayira Muxaddamatul Xidma liggéey bi ci wàllu physique ci wàllu doole ci wàllu xalaat ak ci wàllu it man-man muy participer saa su nekk moo xam ajjuma moo xam màggal moo xam gàmm ak lu mën a doon rek e, ñooy ànd liggéey bi mbégte la kon nag li wax léegi ci ne ren xat yi am tax ngeen xeeb liggéey bi ngeen indi loolu ñun duñ ko xeeb ndax Euh, fi jamono toll kenn ku nekk xam na ne crise bi nga xam ne mooy crise bi am aju ci wàllu wéradi indaale na bu baax a baax crise économique ngir nit ku nekk sunu borom dala booleek nga war a yëngatu ngir am dara segam nag su demee su dee fii ci biir réew mi ak bitim réew yëpp kenn ku nekk dañoo annuler say déplacement mënoo too dem fenn say yëngatu wàññiku bu fekkee da ngaa yor bitig di jaay tamit ña doon ñëw di jënd si mënuñoo ñëw jënd si kon su boobaa man man eh, mën naa wàññiku waaye teewul feeñut ci seen pasteef ndax sëriñ bi sun borom da defal loo xam ne defalu ko ñu bëri muy dafa jël xoli taalibe yi moomale ko nga xam ne xamuñ kiris yoonu murit mooy yoon woo xam ne amul kiris ndax jumaa ji nga gis ñu nekk tey jamono jiñ koy tabax ci la kiris gënoon a metti fuuf pest yi amoon tamit ci la gënoon a metti foofu te teewul mag ñi eh, luñ lekk jafe woon na luñ naan jafe woon nga xam ne sax ndox miñ daa tabax tabaxe jumaa ji dañ ko daa garder ngir bañ ñu naan ko kon loolu garaawoon na loolu moom yàlla bu ñu fa mas a àggati te teewul ñu tabax jumaa ji ci dépassé ci ay millions juróom-ñetti téeméeri million ak nangam ci xaalisu ngurdu loolu mooy law ba léegi kon lu kiris am teewul dajale ngeen seen addiya indi ko ngir ñu def ko ci liggéey bi jiital ko ci bisaab bi ak addiya ju solo ji nga xam ne indi ngeen ko kon nag loolu lu rëy rëy la loo xam ne ñi ngi ciy sant bu baax a baax te di ci gërëm nit ku nekk nag bu dee jëfal boppam sax mëtta sant waaye dafay mat seede ngir ñu nekk ci seen ginnaaw di ko jëf di ko jaarale ci yéen kon cant gi ñun ñoo ko bokk waaye ñaan gi ñu bokk sëriñ bi nga xam ne mooy borom liggéey bi mu bokk defal tawféex bokk ñu dugal ci digg àjjana ji nga xam ne moom la digg ñi koy liggéeyal inna allazina saarahu li xidmati fa lahumu diyaaru wasal jannat te suñ borom jeexal euh, tawat ji yaatal wërsëgam dindi xat-xat yëpp ba lépp loo xam ne rek nit yéene na koo liggéeyal sëriñ bi eh, nga mën a def lu kawe sa njort barkati xaadim rasul te yàggal ànd bi kon ñi ngi sant bu baax a baax di gërëm ñaan sunu borom mu defal ñu tawféex ak taysiir asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu